ngi noonu di wax salaamaaleykum salaamaaleykum samay mbokk internet di wax salaamaaleykum salaamaaleykum képp ku safoo di seetaan li nga xam ne mooy RTT les regroupements des terres télé bi nga xam ne jamono ji mooy def nga xam ne mooy yëngal fi nga xam ne mooy goxu Thiès kaay internet beeg lépp di tàngal dafa am la xew nag fu ngeen gis di jëmbës taxaw nag xam ngeen ni tey du yomb fii ci terrain basket bi laa taxaw terrain basket ban caali li ñuy waajal li ñuy waajal nag di ngeen ko xam ci kanam di ngeen gis li nga xam ne mooy xew lii xew nee naa leen képp ku ko tardé ku ne barki yeneen bi yaa ngi animé waa RTT kan moo fay nekk di jëmbës ànd koog goney caali ànd koog ñi nga xam ne ñooy defar caali ànd kook ñi nga xam ne nee naa la ñoo nar a safal caali ba mu saf kañ lañ koy safal la 15 nee naa la dinaa ci dox ak ñoom laaj leen naka la ak nan la ak programme bi muy déroulé ngeen xam soirée bi nan lay demee acca ci kanam rek ma yëkkati micro bi fas yéenee dégg ki nga xam ne nee la moom mooy ndaanaan ju mag ji ki nga xam ni nee naa la organisation bi si la bokk mu wax leen naka lay programme bi di déroulé sëriñ bi delloo nañ la ziar. ñu ngi lay ziar ziar bu baax. yéen waa RTT bon di kontaan tamit ci déplacement bi ngeen def fii nii di kontaan ci déplacement bi ngeen def ñëw yegg si fii nii pour lancement soirée events bi fii ci terrain HLM Thialy ak Sidika bon soirée bi le 15 juillet la dañuy def benn lancement events boo xamante ni suñu events bu ñu créé fii nii ci HLM bi. ñu organiser nag benn soirée soirée bi nag wër nañu Cees ku nekk mais Sidika dong moo ñu ci doy. Mhm. Sidika dong moo ñu ci doy te ndaanaan la xam naa nag bés bu ñëwee fii dingeen ko xam parce que ñu nag moom fu mu dem rek ñu ngi ci ginnaawam incha allah tamit am na yeneen artistes invité yoo xam te ni ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir ndax euh, events bi bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn te gëm naa ni moom incha allah le 15 juillet di ngeen gis. lu kenn most a gis. mais kañ ngeen ko kañ ngeen ko organiser fi nga xam ne mooy caali yi ngeen def li nga xam ne. ñoom mooy waajal muy bés bu rëy. ngeen woo ci nag artiste bi nga xam ne ndaanaan la kooku kenn du ko tàmbale ma kenn soo duggee Ndakaaru Njaay da koo def buzz nga dugg Cees kaay mu def buzz nga dugg fi nga xam ne mooy doosu mu def buzz ngeen nar koo andi fi nga xam ni mooy caali andi ko fi nga xam ne mooy goxu Cees kaay dëkk ñaari gaar Sidika est xam ko bu baax a baax. nan a baax bon events bi boo gisee soirée bi soirée bi defoon noonu pour mu doon soirée soirée dong rek mais dañoo dem ba ci biir ñu toog ñu concerté wu ñu ne pourquoi pas li ñu def ko events parce que ku dem ba indi Sidika mun nga dem ba andi keneen. Mhm. te loo gis rek ci benn lay commencé. Mhm. donc nag si la ñu jël initiative boobu ñu créé waale jour soirée bi ñu defaale lancement events bi nga xam te ne bu ñu paree ci Sidika tamit. du ñu yem ci Sidika dong ba daal. dinañu dem ba andi keneen ak keneen koo xam te dina dem sax ba sut suñu njort sut njort waa Thiès yëpp sut njort waa Thial yëpp parce que booy xool caali lu mel nii daanu du fi bëri du fi bëri wala bu fi amee tey balaa mu fee amaat. doo xam kañ la donc nag ñun dañoo jug ci côté boobu noonu events bi nag bàyyiwul dara ci côté social ak et tout voilà pa bu ñu paree ci Sidika dinañu am ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne dinañ leen song te bu boobaa du fii la ñuy jëm ñoom Maniang Soumaré la ñu jëm ñoom ndax fi dañ koy xeeb xam naa ni jour soirée bi di nga xam ne fii dinañ ko xeeb incha allahu rabbi acca mu ngi noonu dégg ngeen ko ci kàddu yi mu wax daanaka nee naa leen préparé leen ngeen waaj le 15 juillet fii du yomb ci biir caali kan ngeen ànd ak di jëmbës ànd ceeg sama caméraman mu ngi noonu nee naa la sama jongoma bu ñaawle programme bi fas waat tourné waat laaj ki nga xam ne nee naa la ci biir programme bi la bokk ay waay la 15 juillet dara du yomb acca sama waaj Dj ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ñu ngi bëgg waa RTT donc di nuyu waa cees yëpp. ñu ngi nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo seetaan STT donc comme ni ko sama waa ji waxee rek bon ñu ngi waajal benn bés bés bi nag donc le 15 juillet lañ koy lañ koy def donc ñu ànd ceeg benn artiste bu ñu naan Sidika donc kon ni ñu koy waxee rek lancement bi moom lancement event la donc li ko li ko ëmb bari na bari na trop ndax ñu ngi waajal leneen nag leneen loo xamante ni donc buñ ci buñ jugee ci lii rek di ngeen xam ne ne tey jii ñun juguñu pour pour pour pour taxawaal wala dañoo jug pour def ko pour effacer wu pour wala pour wut xaalis mm-hmm. xamante ni nag dañoo dañ ci woo Cees yëpp ñu ci woo Cees yëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci Cees di dégg kii bi événement bi nga ñëw jàppale ñu dooleel ñu te xam na ay jeunes lañ donc loolu daal moo doon affaire bi donc ñu ngi jox loxo ñëpp di taataan ñëpp loxo te xam ne ay ndaw lañ dañ ñoo war a teete comprendre nga ñu ñëw Sidika yëngal terrain basket bi donc mooy loolu yaa ma gën a xam. léegi euh, li ma bëggoon a laajte mooy ci benn question bu ndaw rek mooy la 15 juillet bi nan ngeen ko nar a programmer Sidika da ngeen di def podium pour waa Thiali wala pour waa Thiès la wala pour pour àdduna ak wëndeel képp la daal. non àdduna ak wëndeel la képp ñëpp xaj nañ ci ndax boo demee ba woo télé mhm. tey mu ñëw taxaw ñu koy lancé ci ñu koy lancé fépp di jàll kon àdduna nga ciy woo. Mhm.